Birama À la présentation, Hassan assure la partie technique. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec euh, le préfet de Dakar qui rappelle à l'ordre les ressortissants guinéens qui manifestent devant l'ambassade de leur pays à Dakar. Alioune Badara Samb invite tout manifestant à déclarer au préalable euh, tout désir d'organiser une manifestation conformément à la loi en vigueur. Il indique que les récalcitrants pourraient être reconduits à la frontière. Le voici que nous écoutons au micro d'Amadou Moustapha Dieng. J'ai effectivement sorti tout à l'heure un communiqué pour rappeler les règles qui régissent la l'exercice euh, des libertés publiques. Je veux dire par là les règles qui les manifestations sur la voie publique, les marches, les rassemblements les réunions publiques, etc., dans notre pays. Je rappelle que pour ces manifestations-là, il y a une formalité substantielle, une formalité obligatoire qui consiste à faire la déclaration auprès de l'autorité responsable de l'ordre public, à savoir le préfet de département. Nous avons effectivement constaté, pour le regretter, qu'hier et aujourd'hui, des manifestations spontanées se sont tenues sur la VDN aux alentours de l'ambassade de Guinée par des jeunes Guinéens pour l'essentiel, mais probablement même des Sénégalais ou autres, sans qu'il y ait eu déclaration préalable. Ce qui est inacceptable pour un pays de droit comme le Sénégal, un pays où l'exercice des libertés publiques est garanti. C'est pourquoi j'ai tenu à rappeler que les manifestations doivent faire préalablement l'objet de déclarations et que les contrevenants, les participants, les organisateurs s'exposent à de lourdes peines pouvant aller jusqu'à euh, euh, jusqu'à une reconduite aux pour tous les étrangers, qu'ils soient guinéens, maliens, etc. Je rappelle que le Sénégal est un pays très attaché à l'unité africaine, très attaché au panafricanisme, aux règles de bon voisinage. C'est pourquoi cela ne s'adresse pas particulièrement aux Guinéens, mais ça s'adresse à tous les manifestants sénégalais, guinéens, maliens, etc., qui consiste à leur dire qu'il faut respecter les règles qui régissent l'exercice des libertés publiques. Dans un pays de droit, y a des règles qui doivent l l'objet de respect et si tel n'est pas le cas, les sanctions vont tomber à ce niveau. Les dispositions sont déjà prises et j'en appelle à la responsabilité de chacun mmh. et de tous. Parce que c'est inacceptable dans un pays comme le Sénégal mmh. que les gens veulent tenir en otage les populations en voulant manifester spontanément à plusieurs reprises, mmh. bloquant la circulation, empêchant les gens d'aller et de venir même des dégâts matériels auprès doon citoyen à l'instant Alioune Badara Samb le préfet de Dakar qui se prononçait en sur la situation des ressortissants guinéens qui manifestent euh, tout bout de champ au, au, euh, devant l'ambassade de leur pays ici à Dakar Lune Badra Samb, le préfet de Dakar que nous venons d'entendre, et puis l'Observatoire national des lieux de privation de libertés déplore la situation qui prévaut, qui prévaut autant pour moi au niveau de la maison d'arrêt de correction de Gossas qui manque de tout, une prison plongée dans le noir. pas de branchement d'eau courante. Le problème de fosse septique se pose avec acuité. Marceline Lopez Ndiaye, que nous écoutons au micro de Ngorsar. En ce qui concerne les conditions euh, des personnes, il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Malheureusement, ce qu'on peut euh, déplorer, c'est certaines conditions dans lesquelles travaille le personnel euh, de ces endroits Moi, en ce qui me concerne, j'ai visité la MAC de Gossas et je trouve qu'ils sont quand même dans un état de, de dénuement. disons qu'il manque, par exemple, par exemple hein, il manque des, des, des poteaux d'éclairage autour de la, de la prison. Ils sont plongés dans le noir total. Euh, il y a des problèmes de, de fausses septiques, euh, euh, pas de branchement d'eau courante. Euh, enfin, toute chose qui, quand même, aujourd'hui, n'est presque pas possible. Dans un, surtout qu'à Fatigue, il y a de l'eau courante. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit effort, quand même, pour les aider parce que euh, la visite s'est bien passée et les gens étaient vraiment les. On a eu un entretien avec des détenus. Ils ne se sont sont pas pleins contraire, ils ont dit qu'ils étaient dans de bonnes conditions, on s'occupait bien d'eux, ils avaient vraiment aucun grief contre euh, l'administration euh, pénitentiaire. Mais par contre, c'est vrai qu'ils travaillent dans un dénuement un peu total. Hein. Ils font avec ce qu'il y a. Mais je crois qu'on les a un peu oubliés. Il va falloir qu'on se rapproche un peu d'eux, d'autant plus que c'est pas très difficile. Ce qui leur manque n'est pas très très euh, difficile à améliorer. Et je pense que de, nous allons faire un plaidoyer pour cela, parce qu'ils le méritent. Je vous dis, il n'y a, a pas de d'eau courante dans les, dans les cellules. C'est des pots qui sont des, des baignoires qu'on remplit d'eau, etc. Il n'y a pas d'électricité autour de la, de la MAC, c'est quand même dangereux. Il peut y avoir des évasions, euh, il peut y de ne peuvent pas travailler dans la sérénité. Madame euh, Josette Marceline Lopez Ndiaye se prononçait lors d'un atelier de renforcement de capacité des agents d'exécution de la loi de la région de Fatick. Elle est la présidente de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Et puis en sport, le Ndiambour de Louga prépare activement la saison 2020-2021. Pas de question de jouer le second rôle. L'ambition de l'équipe Fagnon de Louga est de remporter tous les trophées mis en jeu. Lamine Gueye Saman. Gagner le championnat, remporter la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue, telles sont les ambitions de l'équipe de l'ASAC Ndiambour durant la saison Morsila Arke est le président de la section foot de l'équipe Fagnon de Louga. Le président, lui, il veut que le club gagne quelque cette année, donc ses ambitions n'ont pas changé. Nous sommes en train de faire une équipe qui peut gagner. Mais comme tout le monde veut gagner, je pense qu'il y aura un seul premier gagner du championnat, mais également gagner une coupe, coupe de la Ligue ou bien coupe du Sénégal. Pour arriver à cet objectif, les seuls moyens financiers et matériels du président du club, par ailleurs maire de la commune et ministre de l'Industrie, Moustapha Diop, ne suffisent pas. Une vaste campagne de recrutement est en train d'être opérée pour renforcer tous les secteurs de l'équipe, mais aussi remplacer certains joueurs cadres, quatre au total, partis monnaie leur talent ailleurs. Le coach a fait on est dans la bonne voie. Presque la quasi de ces joueurs qui ont été retenus pour le de ont été faits. Certains vont de la Ligue 2, d'autres de la Ligue. listé des joueurs par ligne et par poste, c'est-à-dire un gardien de but, trois défenseurs, trois milieux de terrain, quatre attaquants. Et avait conservé 13 voire 14 mais il y a quatre qui sont déjà partis, trois au Giraffe et un à la Douane. il faudra aussi qu'on les remplace. à jouer, nous dit le président du Ndiambour. Les supporters du Ndiambour ont toujours joué leur rôle donc vous me donnez l'occasion aussi de les appeler à venir auprès de leur pour que demain qu'on ait de très bons résultats parce que sans eux l'équipe ne pourra pas aller de l'avant. Pour rappel, depuis son retour dans l'élite du foot sénégalais il y a cinq ans, Lazak Ndiambour a toujours lutté pour ne pas retourner au purgatoire. La Ligue de soit a été dans le ventre mou du classement. Sud FM sant leen gërëm leen gërëm bu baax Sane Thioune mi féete ci xarala gi mbokk yi ñoo ngi leen di gërëm ñëw ak yenn ci xibaar yi. dooree ko ci communiqué bi nga xamante ne préfet bu ndakaaru daal dina ko génn di dànkaafu Euh, ressortissant Guinée yu nekk fii ci Ndakaaru ak bépp way manifester ndaxte nag nee nañ dootu nangu benn yoon fu waay jóge rek daal di euh, galan yoon bi yàqal nit ñi seen dem ak seen diggante la nga xamante ne kilifa bi war na ko yëg jaarewuñ ko fa noonu moom nag jàpp na képp ka nga xamante ne bëgg na defati la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu manifester rek na daal di yëglu kilifay nguur lu ko mooy nag képp ku ko defati rek dinañ la jagat jagati génne la ci réew mi Alioune dama fàttali ni rek réew mii di Sénégal dafa am ay règle ay charte yoo xam ni moo organiser li ñu naan liberté publique maanaam dem ci manifester muy marché muy sitting muy rassemblement di ko def ci voie publique voie mooy ci mbedd. loolu yoon dafa tënk ni bala nga ko def dafa am déclaration boo xam ne ak ay app ak ay yoo war a def ci kanamu autorité bi nga xam mooy responsable au préfet département déclaration boobu war nga def wax lu tax ngay manifester. nga def ko lu mu néew néew ñetti fan euh, yu yu mat sëkk avant bis bi fukki fan ak juróom yëpp nga ñëw def ko ci déclaration ci kanamu préfet boo defee loolu ba ne instruire ko ci nga mën a dem déclarer waaye xëy suba teel doon ay ay téeméeri téeméeri nit wala ay junni junni nit baare tali euh, empêché nit ñi dem sànni xeer yàq yi bi jàmbur loolu buñ ko toléré benn fan ñaari fan day doo xam ne jaaduwul et tolérance a mën a am Sénégal nag ak réew yu ko wër muy Guinée muy Mali muy euh, beneen réew dafa doon réew moo xam ni jàmm ak salaam la ñu séq dañoo jàpp ñu ñëpp ñu ay doomu Afrique lañu ba nga xam ne boo demee ci charte réew mi dañu réaffirmer sax engagement pour dem pour unité africaine kon xam nga ni réew muy def loolu loolu euh, stigmatisé wuñ poussé wuñ benn réew te li may wax c'est valable aussi bien pour sénégalais yi bu ñëpp dama fàttali ne rek manifestation ku koy def balaa nga départ da nga war a ñëw nga def déclaration respecté formalité boo ko respecté ba nga xam amul benn difficulté nga dem waaye xëy suba teel baare tali sànni xeer def loolu bu amee loolu loolu mënta wéy e ma fàttali ni képp koo xam yaa koy def boo dee sénégalais wala leneen daan yu saf sàpp war na mën a dal te kaw gannaaw daan yooyu nag dafa fekk ni boo nekkee cim réew ah bu fekkee ni charte réew moom mënoo koo nangu da daal di waaj nag ñu daal lay jébbal sam réew delloo la ci frontière loolu moom euh, ñëpp lañ ko jiwoo ko am étranger nga yaa exposé sa bopp la ca mooy ku tooñ ja jalgati yoon euh, sanction yi moom moo ngi fi avec euh, bien sûr ci euh, direction procureur loo xam mooy toppaat. bu ndakaaru ngeen doon teewlu noonu moom ba dara Samb mi doon àddu ci manifester yi nga xamante ne saa su ne doomu Guinée yi ñoo ngi ko fi def ci seen kanamu ambassade ngir rek daal di ñaawlu doxalinu politique ak élection yi foofee ca seen réew observatoire national. des lieux de privation de liberté maanaam kuréel gi nga xamante ne dafa jóg ngir daal di saytu lépp lu jëm ci wàllu wàllub ndogu siin yi moo ngi mettitlu la nga xamante ne moom la daal di gis foofee ca kaso bu nekk ca Gossas ndaxte foofe amut lenn loo nga xamante ne daal di nay jëmal nit kanam lañ fa daal di nemmeeku amuñu courant li la di ndox waxi noppi ak yett lu jëm ci wàllub foos yi loole amut lenn la nga xamante ne gis nañ ko ci biir bërëb boobi Marceline Lopez Ndiaye moom lañuy ñuy teewlu ci micro Ngor Sarr. fii ci Gossas de tout se passe bien kenn ci ñoom waxuñu daal lu nga xam ne gaañ nañu euh, waa administration pénitentiaire ñu nekk dañuy lekk dañuy lekk bu baax dañuy të fu ñuy tëdd dafa baax euh, en tout cas euh, relation yi amul foofu benn histoire et tout amul benn grief pour ñu relever contre l'administration loo tax daal administration bi war nañ leen dimbali pour seen seen seen liggéeykaay gën a am. solo ak euh, ñu am appareil yu baax ak yëpp daal bu leen di facilité seen liggéey ay ordinateur ay lampe yi parce que caso bi dafa nekk en pleine obscurité foofu amul lampe alors que maintenant am na ay lampe solaire yi nga xam ne mun nañ lañ ko def ah pour ñu bañ nekk ci ci lëndëm bi et puis amul ndox ndox bi amul ndox courante c'est-à-dire ah, ndox bi daal dañuy dañ koy root dañ koy root ñuy sangu comme ci xam nga comme bu njëkk ba mais loolu en pleine fatigue Euh, ndox mi am na donc dañu war a def benn effort pour indi ndox mi foofu dimbali leen daal dimbali leen torture yaa ngi wàññeeku de depuis suñu euh, euh, mandat suñu ñëwin fii am nañu espoir daal que torture dina fi jóge Josette Marceline Lopez Ndiaye nag moo ngi doon àddu ci benn lël ba nga xamante ne dañ ko doon def ngir daal di yokk Euh, man-man ak euh, xam-xam ña nga xamante ne ñoom ñooy saytu ndungu siin boobe rawatina foofe ca Fatick moom nag mooy njiital njiitalu observatoire nationale de lieux de privation de liberté di ONLP ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci tàggat yaram njàmbur bu Louga mu ngi waajal bu baax a baax la nga xamante ne moom mooy saison deux mille vingt deux mille vingt et nee na nag du yoon ñuy daal di nekk ci seconde roue seen bëbët bokk na ci bépp ndam ba nga xamante ne daal di nañ ko fa teg ber bu raaya ñoom ñu daal di ko jël loole ñoo ngi ko daal di xamle ginnaaw bi nga xamante ne nag ñoo ngi amal. wàccaay gu am solo ci at gii Lamine Gueye Samane. gagné championnat bi jël coupe du Sénégal ak coupe de la ligue mooy bëgg-bëggu Azak Ndiambour atum ren jii Mor Syll Arke moom la ñu dénk lépp lu jëm si wàllu section football bi. président bi moo fi mu gis rek mooy fu mu dem dafa war a gagné moo tax mu ñëw jël équipe bi pour bëgg a gagné lépp lu si war nag mi ngi koy def bëgg a gagné waaye parfois football dadul ni koom-koom rek mooy tax muy gagné am na leneen lu tax kon jàpp naa di ñett at yi ñu weesu war na si jàngat lu bare bari ba ren jii war nañ góorgóorlu ba moom li mu dëkk bëgg ko ñu defal leen ko mooy gagné championnat wala ñu gañe benn coupe. ngir am bëgg-bëgg bi ni mel nag koppar ak jumtuwaay yi nga xam ne moom la président wu équipe bi di joxe moom mi nga xam ne mooy maire dëkk bi di itam ministre de l' industrie Moustapha Diop loolu rek doyul tax na nag am na yeneen joueurs yi xam ne ñu ngi leen di jëggaane si jamono yi ñu toll ngir gën a dooleel bépp pàcc si biir équipe bi waaye tam remplacer yenn si joueurs yi xam ne fesoon nañu lool ñu toll si ñeent dem daani seen doole feneen. gannaaw bi nga xam ne nii entraîneur saytuwaat li nga génn mu joxoon ñu ab boo xam ne dañ la war a seeti leen seet na leen ba yàlla def na si jàmm ba ñu bëree bëri am nañ leen waaye laata nag ñuy am ñooñu am jour yoo xam ne nii ngi foon ñu kontoon si ñoom ñu jóge fi dem feneen kon tey fi ñu toll nan la remplacer ñenn ñi danañ jóge Ligue 2 ñenn ñi jóge ci Ligue 1 bi am na sax ñoo xam mën ngeen jël ci division bu gën néew xayma na leen ni góol yi soxla naa fa benn góol damay téye ña fa nekkoon ñam moom lépp leen paan ba mu des ay supporters ndax ñoom seen rôle ñu ngi koy remplir baax a baax ndax da gis sax ab équipe bu la recevoir yow nga dem fa nga nekk étranger mais boo dégloo waa njàmbur ngay dégg ñuy yuuxu kon ñoom xanaa ñaaxaale rek la doon def ñu gën ko yokk ndax équipe bu ne soxla na am supporter mel njàmbur ndax ñoom duñ découragé te chaque fois ñu ngi ñëw di dem di dikk di yuuxu pour nekk dudum am parce football bi ñu ba tey njàmbur nekk si digg classement bi ki leen doon jottali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Saman Sud FM. Lamine Saman mbokk yi foofu la ñu yem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax sant Thioune mi fete woon ci xarala gi ci kanam tuuti bu juróom-benn waxtu jotee ba teg fanweeri simili rédaction bi dina fa ñëwaat yaatal ko ci français ak ci wolof laata loolu ñu bay leen ak oustaz Alioune Sall oustaz Mbacke si la ñëw ak yéen ci wàllub waxtaanu diine gi ñu leen di ñaanal panaanub jàmm.